alhamdulilah aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ah, ñu ngi ñëwaat nag ak yéen ci jotaayu tey bii nga xam ne jotaay la bu am solo bu ñuy waxtaanee mu jëm ci wàllum pajum cosaan nga xam ne fii actualité tollu tey ci jamono nga xam ne àddina yàlla daf ko bind muy dox xam-xam di am di gën a moderné wu ci wàllu benn fànn di gën a xóot nag di gën a leer ci beneen fànn mooy pajum cosaan mi nga xam ne tey yàlla leeral na ko ci bëti àddina bi ñëpp teg seen bët ne pajam cosaan dëgg la donte yàgg naa nekk dëgg ñun waaye am na ci ay yu yoo xam ne daan na ci am loolu nag tax tey ñu war a waxtaan ak yéen ci fànn bii muy lu jëm ci wàllu jinne yi ak lu jëm ci wàllu rawxaan yi ak lu jëm ci wàllu malaayika yi lu jëm ci wàllu rab yi lu jëm ci wàllu jalang lu jëm ci wàllu fétis lu jëm ci wàllu lasraar lu jëm ci wàllu dëmm ak lu jëm ci li nga xam ne mooy wàllu rab ñii dafa nekk ay xeet yoo xam ne kenn ku ci nekk da am sa benn rôle boo xam ne moom ngay def am loo xam ne nag dafa nekk ci wàllu nit ñi loolu lañ war a waxtaanee tey li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu médecine bi nga xam ne tey am na ci ay feebar yoo xam ne jamono biñ nekk tey ñu bëri dinañ jàmbat ay feebar yoo xam ne bu ñu demee hôpital dañ leen di wax ne feebar yii nekkul feebar yoo xam ne feebar yu wér la donc bokkul munu euh, maanaam yenn wut maanaa ci intellectuel bi nga xam ne am na xel waxuma intellectuel euh, yi nga xam ne waxuma soi-disant intellectuel nga xam ne dañuy ñu ñu yor big fay jàng yooyu comme yaakaar intellect maanaam quelqu'un koo xam ne kii il est intelligent losigul ci xel ñu ne feebar bi amul saafara loolu losigul non seulement losigul mais hadis boppam waxula yoon ci alama salaa dafa wax ne bépp jàngoro boo xam ne yàlla bind na ko rek jàngoro ca saafara ba moo jiitu jàngoro ja kon feebar yi xew ci jamono bii nga xam ne léegi am na ay nit ñoo xam ne dal na ci seen kaw mu jaaxal leen jaaxal goo xam ne jéggi na dayoo mu bokk ci lu mel ni tension tension du feebar mbiram seytaane la lu mel ni jabet du feebar mbiram seytaane la lu mel ni hépatite du feebar mbiram seytaane la lu mel ni cancer mbiram seytaane la lu mel ni li nga xam ne mooy ulcère mbiram seytaane la stress mbiram seytaane la seyaatin yi nag ñoom ñooy lëkkaloo ak léegoo léeg nit ñi nga xam ne yàlla dafa rax ci ñoom dara ñu leen di ooye ay dëmm am ñoo xam ne dañuy weddi ne dëmm am na waaye bu xamoon li ci dëmm danañ ko moytu waaye am na ñoo xam ne dañuy wax ne jinne am na am na ñoo xam ne dañuy wax ne eh, rab mooy jinne wala ñoom ñëpp benn xeet la rek jinne la déedéet nit ñi dañoo am ay xeet ndaa ngi dégg jinne yi dañoo am ay xeet dëmm yi dañoo am ay xeet ak ay catégorie jinne yi dañoo am ay catégorie ci biir jinne yi am na ci ay jinne yoo xam ne bu leen jinne gisee day daw comme nit nit di dawee jinne la leen la leen di jinne di dawee loolu dafa am ci biir jinne yi moo tax am na ci jinne yoo xam ne ay buur lañ ci jinne yi ay roi ñoo ñu ponkale jinne yu mag yi nga xam ne yàlla daf leen bind ñu nekk ay jinne yu mag yoo xam ne ñi gëm yàlla am na ci ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ ay jinne yu màgg lañ am ci ñoo xam ne gëmuñ yàlla ñooñu ay jinne yu am doole lañ yoo xam ne faalewuñ dara ñoom luñ bëgg a def rek dañ koy def parce que amul dara lu ñu xalaat waaye ñoom mënuñoo ci yàlla ndax yàlla moo leen ëpp doole ñoom ñëpp am ci ñoo xam ne am ci ñoo xam ne yàlla def leen bi dañu nekk ay jinne waaye jinne yi yamamaay lañ a ah, rab nag dafa am waaye buñ rab ak jinne ak dëmm danañ lëkkaloo ci buñ soxlaa nit ku am bopp wala mu am may yàlla ñu bëgg koo faat mu tëleen danañ associé pour pour fexe nuñ ko éliminer moo tax yàlla am na ci ay nit yoo xam ne may na leen may goo xam ne bu leen ñooñu ñooñu ñëwalee danañ ko yàqal ci wetu wërsëgam wala ci wàllu wér-gu yaramam mais pour ray ko moom dafay nekk lu tëj ci ñoom boobaa nag dañuy associé dañuy dañuy bokk pour mën a pour mën leen a faat donc li jëmm am na ci ñoo xam ne danañ la danañ la lor ci ñam ñoo xam ne danañ la lor ci seen bët ñoo xam ne danañ la lor ci ngelaw am ñoo xam ne danañ la lor ci làmmiñ am ñoo xam ne danañ la lor ci xel am ñoo xam ne danañ la lor guddi fekk dañoo ñëw génn seen jëmm yàlla may na leen nag mën nañoo génn seen jëmm mën nañoo nekk ganaar mën nañoo nekk euh, euh, euh, nëpp si jaboot mën nañoo nekk ndox ndox suuf loolu yëpp ay serpent bu dee bu dee kii la mën na nekk muus mën nañoo nekk ci façon bu nekk mën nañ koo feeñoon mën nañ laa dikk ci côté picc mën nañ lekk ci côté bu dee dëmm la dëmm moom dafa bëri ay xaaj ndax am na ci ñoo xam ne duñ màttee duñ bàyyi am na ci loolu nag su fekkee daf la jàpp mën nga dem ci téer nuñ bëgg nag mooy dañ lay xiir hôpital parce que dañuy xam ne hôpital moom doo ko wéree moo tax ñu bëri bu leen feebar yooyu jàppee dem hôpital mooy dal seen xel waaye fekk ñoom ñoo leen di pousse bu ñu dem hôpital ndax ñu mën a am liñ soxla bu ko defee nag ñoom mën ngaa dem hôpital tax ñu jiitu la fa mën ngaa dem hôpital ñu jiitu la fa mën ngaa ñëw ñoo ñu dalal la euh, euh, euh, te doo xam ne sax ñoom ñoo la ñoom ñoo la jiitu hôpital say jinne seytaane yi noonu lañ mel mën nañ laa yebal ci barab nga dem ñu jiitu la fa moo tax jinne ak dëmm ak rab ak seytaane ak nitu guddi ak kii kon Euh, euh, fétiche ak yooyu yëpp ak jalañ yooyu yëpp ay xet la yoo xam ne dañ dana ñuy dana ñuy jëf ci loo xam ne ci lu ci lu nëbbu la moo tax jinne yi nag yàlla daf leen may ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dañoo am nu ñuy doxalee ak nu ñuy liggéeyee ak noo xam ne noonu lañuy ñuy doxalee seen mbir am ñoo xam ne gëmuñu yàlla jinne yi nga xam ne gëmuñu yàlla nag ñooñu ay sacrifice la ñuy soxla léegoo léegi ñu soxla deretu nit léegoo léegi soxla deretu mala léegoo léegi soxla wala nga saraxe ay bakkan wala cër wala nga saraxe loo xam ne euh, euh, alal lay nekk loolu ñoom ça dépend ci li nga xam ne moom lañ bëgg moom lañ la sant pour nga liggéeyee leen ko euh, pour ñu ko ci ci ci santaane boobu ci lañ lay tegee seen conditions yi nga xam ne moom lañ soxla bu dee jinne bu gëm yàlla la nag moom du la sant lu xaraam du la sant lu neexul yàlla du la sant lu yàlla bëggul moo tax ñi nga xam ne yàlla may na leen ay jinne da ngay gis su fekkee jinne ju baax la daf leen di amal njariñ moo tax ñu bëri am na ñoo xam ne dañuy daw jinne yi fekk suñ xamoon li nekk ci njëriñ ci jinne duñ daw jinne buñ amee jinne ju bon sax danañ ko naxanteeg moom ba tuubal ko ba mu dugg ci lislaam ndax jinne yi ni nit ñi mel lañ mel am na ci ñoo xam ne dañuy gëm yàlla am na ci ñoo xam ne duñ gëm yàlla am na ci ñoo xam ne danañ boo leen waaree ci yàlla danañ gëm yàlla am ñoo xam ne boo leen waaree duñ la faale waaye am na ci ñoo xam ne tamit bu dee jinne ju gëm yàlla la kooku boo jàngee alquran ci noppam du ko def dara moom day jàng alquran comme yow daf koy daf koy bëgg sax bu fekkee ne jinne ju gëmul yàlla la nag moom boo jàngee alxuraan dangay gis mu abal la ñoom duñ fekkee mukk fu ñuy jàngee alxuraan mooy jinne yu bon yi kon jinne dafa am ay catégorie yàlla dogal nag ci jinne yooyu su fekkee ne nag yàlla boole na la ak ñoom da gis ne dañ lay dimbale ci fànn bu ne su fekkee ne yaa ngi nekk yaa ngi nekk ak ñoom ci fekkee jinne yu gëm lañ yàlla waaye bu fekkee ne nag jinne yu gëmut yàlla la ñu ànd ak yow ngay liggéey ñoom amut nooy ba mënu ba duñ la génne boo amul fayda ñu génne la sa parce que lañ lay sant nga di ko def du dëppoog lislaam ndax daraay lislaam du leen neex amul duñ juboo duñ ànd ak lislaam ci lenn bu boobaa nag bu fekkee alali àddina ma la itteel bu boobaa lañ lay sant nga di ko def day nekk lu loo xam ne du dëppoo lu neex moo tax des fois nga gis nit koo xam ne day dem ci sëriñ sëriñ bi proposé ko ne ko man daal pour ma faj la faw ma tëddee la ah pour faj la bu boobaa jinne ji nga xam ne moo koy fajal mooy soxla sperme boobu mooy soxla ma néew boobu surtout doom yooyu nga xam ne ñoo waroon a am ci sperme boobu mu lay tëddee loolu ay ay ay ay doole lay nekk ñeel ko moom jinne jooju nga xam ne moom lay liggéeyal te ci la koy defalee doole moom it mu gën a am moo tax ñooñu ay ay xërëm ay nit lañ yoo xam ne ay nit yu nit ñuy liggéey ci wàllu zulmaan yi la nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu lu tilim lu tilim lu lu ñuul mooy nooraaniya mooy ñi nga xam ne dañuy ci wàllu leer zulmaaniya mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu lëndëm léegi su ko defee nag moo moo tax ñu bëri tey da gis nga dem ci sëriñ mu proposé la loolu mu nekk mbetteel ci yow nekk ak jël nga mu nga am jël bu rëy ci loolu ah diw ngam de ah dem naa ci moom mu wax ma nangam fekk moom mu ngi jëfandikoo loo xam ne lislaam bëgg ko waaye moom xoolu ci loolu lim ci xool daal mooy na ci turam yëkkati ko wala na ci alalam feeñ wala na def li neex li nga xam ne moom la àndal te it yow boo ñëwee yow yow li ñuy jëfandikoo pour mën a faj loolu ci yow bu ko defee day très important ñu ne jinne yi baax yi ak jinne yu bon yi ak tamit ñu xam ne sëriñ si nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu lëndëm tey tey mbubboo sëriñ ak sëriñ si nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu leer tey mbubboo tey nga xam ne seen mbir dafa nekk lu leer moo tax dafa am solo nit ñi xàmmee loolu léegi nag bu fekkee ne nag nit ñi yàlla mayee na leen nga ànd ak jinne joo xam ne yàlla daf la may euh, mu nekk jinne ju am doole bu boobaa bépp jinne boo xam ne jàpp na nit su dikkee rek boo ko waxee daf koy wax na nga mu bàyyi ko te yow it daf lay may kattan may la xam-xam boo xam ne di nga mën a ootal leen waxtaan ak ñoom pour bu wax leen ñu bàyyi am na ñu bëri nag ñu ngi laal ay jinne di leen duur di leen duur te amuñu capacité accéder ci ñoom nga xam ne boo dikkee ñu jël saafara wis leen ko jinne ja dem fekk mu naan la bàyyi yaa ngi may tooñ wala yaa ngi may def nangam ak nangam su fekkee yàlla mayut la kattan nga xam seen ay mbir amoo kattanu ma a danañ la danañ fayu ci yow mbaa ñu fayu sa doom mbaa ñu fayu sët te jinne yàlla may ne ko benn benn mbir mën nga am juróom ñaari sët yoo xam ne jinne ji nga tooñ mën naa fayee ko juróom-ñaari sët parce que yàlla def leen may gudd fan man am na jinne yoo xam ne waxtaan naa ak ñoom ñu nettali ma xabaar boo xam ne juróom benn junni at la boobaak tey te juróom benn junni at mooy mill ans jinne ji fekkee na jamono boobu taw moo ma ko nettali ne ma lii ba xew fekkee naa ko ba nga xamee ne yonent ci alma salaa salaam ma nga makka sax booba ñoom tuubaguñ dan dañ ma nettali ne ma buñ daan romb makka dañ daan teggi ndax leer ak yonent ci alma salaa salaam jinne bu ko jegee jegeete gëmoo yàlla dalay lakk moo tax ñu ñu daan teggi Madina daawuñu teggi Madina moo tax nga gis lislaam diine la joo xam ne diine ju wér la jinne yi nag bu fekkee ne oo leen ci l'islam waar leen ni yàlla bëggee ni yàlla baaxee ni yàlla bëree yërmande yooyu bu boobaa mën na leen a tax a tuub mën na leen taxa dugg ci l'islam te dugg jé dugal jinne ci l'islam mook dugal nit ci l'islam ñoo bokk ñoo bokk yem parce que yàlla dafa wax ci alquran wa maa xalaqtu jinne wal insa illa li yahbuduni kon fexee ba jinne gëm yàlla mu ngi mel ni nga fexe nit gëm yàlla donte nit a ëpp maqaama ci yàlla nit a gën waaye dugal nit yàlla diine nit diine lislaam moo dugal jinne ci diine lislaam benn lañ moo tax te jinne yi nag am na ci ne ñu baax lañ suñ xësee tuub dañuy bëgg seen moroomi jinne yi moo tax ñi nga xam ne nag dañoo am ay jinne di tëdd guddi di gis di sëy eh, eh, di am koy sëyal ñu ne la loolu coro rab la mën na nekk rab mën na nekk jinne am na si ñoo xam ne dañuy am faru jinne dañuy am coro jinne am ñoo xam ne dañuy am coro dañuy am jabaru jinne am ñoo xam ne dañuy am jabaru jinne am ñoo xam ne dañuy am euh, euh, euh, faru jinne jabaru jinne ak faru jinne day am bokkul ak rab rab des fois jinne rab mën na lëkkaloo ak dëmm rab ak jinne bokkul rab ay xeet la rab ci boppam xeet la ci xeet yi jinne jinne la rab rab la fétiche fétiche la jalang jalang la dëmm dëmm la waaw nit nag yàlla mën na koo def mu mu mu am accès ci yooyu yëpp am accès ci jinne yi accès ci rab yi accès ci dëmm yi accès ci jalang yi ak accès ci fétiche yi mais bu dee ku gëm yàlla nag du jëfandikoo jalang du jëfandikoo euh, euh, euh, fétiche jinne lay jëfandikoo ak li nga xam ne mooy rab fekkee rab nag dafa dëgër bopp moom pour mu tuub moom c'est un grand problème yaa yombul rab di tuub waaye jinne moom pour mu tuub yomb na ci fekkee ne yàlla may na la tawféex nga mën leen a wax wax ju leex leer ci seen bopp bu buñ tuubee dañuy nekk ñu baax dañu bu ñu gis ci lu bon loo xam ne daf lay lor dañ la koy fegal lépp lu ñu gis ci loo xam ne daf lay daf lay yàqal dañ la koy fegal moo tax am jinne baax na mu ngi mel ni nga am nit ku baax rek amul benn différence moo am nit ku baax benn lañ waaye liñ ëppee nit ñi mooy yàlla may na leen doole joo xam ne jinne bokkul ak nit jinne amul maslaaha ci dara ñoom dañoo direct dañoo dëggu ñi ci tuub dañoo dëggu waaye ñi ci nga xam ne tuubuñu moom bul bul sonn moom ñoom mook nit ku gëmut yàllaa yem lu leen neex rek loolu lañ xool xooluñ leen moo tax ñu bëri tey am nañ ay loraange yu métti yoo xam ne tey mënuñ koo am fuñ ko jooy mënuñ am fuñ ko faje sa fekk dañ leen a fàdd jinnee leen fàdd rek moo tax su fekkee ne nag yaa ngi dem ci sëriñ am feebar bu la dal feebar ba nga dem mu dal la de du domaine sëriñ ba ba jëlee saafara jël ko bind ko jox ko waa ji jinne yi dañ ko balaa ngaa génn sa kër ñu yàqu te sëriñ ba du ca xam dara loolu moo tax ñu bëri danañ dem ci sëriñ ñaan fa duñ gis dara ñu foog ne sëriñ bi xamul dara fekk sëriñ bi xam na dara waaye jinne yi ñoo bëri bari boo xam ne rab yi bëri bëri boo xam ne euh, moo tax ñuy laaj waaw xanaa nit ñëpp am rab xanaa nit ñëpp am jinne am na ci ñu ma koy laaj ma ne leen waaw nit ñëpp am rab nit ñëpp am jinne parce que ñoom balaa nit balaa muy ñëw ci suuf dafa fekk jinne yi occupé nañ terre bi yëpp occupé nañ espace bi yëpp amul fenn foo xam ne da nga dem te nekk ne am na zone boo zone booy dem lu am na ñu ko occupé comme addina bi mu nekk tey amul benn booy dem ci kaw suuf lu du am na président boo xam ne moo yilif suuf soosu donc balaa doomu aadama di ñëw fekk na ñoom ñu ñu seddoo territoire yëpp moo tax yow booy ñëw ñoom danañ xam sa programme ci addina lan lay doon bu fekkee na pour lor leen la yàlla programme yi danañ la gàllankoor gàllankoor bu ne mais kattanal yàlla moo leen ëpp doole moo tax du tee yàlla dana àggali dina la dimbale ba nga àggali sa mission ci kaw mais dina am ay kalkal ay gàllankoor da nga gis seen mbir départ ba yàgg mu am ak kalkal jamono bii nag ñu toll nii jamono la boo xam ne boo gisee sëriñ yëpp jékki-jékki rek fay mu mel ni dañoo nekkatut ci kaw suuf parce que dañoo laal jinne yi te amuñ ci ñoom xam-xam loolu moo indi problème bi dañoo laal jinne yi da ngay gis sëriñ xam ne da ngay gis dem seen kër ñu jël ay jinne dañu sotti ñu yuuxu am na ci ay sëriñ yoo xam ne seen ay jinne yi seen jëm bopp dañ leen a gàddaay dem moo tax xam dafa am ay dimension nit ki nag su fekkee yàlla may na la amoo xam baatin amoo xam-xam pour mën a jëflante jinne yi amoo xam pour mën a jëflanteeg rawxaan yi amoo xam-xam pour mën a jëflanteeg ak xuddaam yi amoo xam-xam pour mën a jëflante ak li nga xam ne mooy rab yi bu boobaa ñoom bu ñu defee contre jëm ci yow rek dangay gis ne yàqu-yàqu day deel nekk sa mbir gàllankoor day daal ñëw sa mbir doo te doo xam foo koy jooyee moo tax tey côté lasaraar bi ñu nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu lasaraar ñu bëri buñ liggéeyee seen lasaraar gars yi dañ koy récupérer jinne yi wala yi dañ koy wala ñu yàq wala ñu gàllankoor moo tax li ñuy def duñ gis résultat bi ñay dem ci ñoom it duñ gis dara ñu fi ñu am na ñu fi nekk ñoo xam ne dañoo bëri coow seen coow dafa bëri woon léegi amatuñ benn coow dootoo déggatoo ci ñoom dara léegi mu ngi mel ni dañoo jël ndox sotte ko ci seen ay mbir lu ko indi mooy ñàkka jëflante ak mbir yi léegi nag su fekkee ne nag yow da ngaa nekk sëriñ dafay laaj soo demee dépenser sa énergie dépenser sa énergie dépenser sa ba mu yàgg dafay laaj na nga replier wu duggaat sa néeg yoraat sa kurus chargé wu waat say énergie yeggaat ca beneen dimension boo xam ne day uutee dimension bi nga nekkoon bu ko defee loolu dina tax bu ñu ñëwee dañ lay gis ci facette bi yu jékki-jékki ba mu yàgg di gisaat la ci beneen facette bu bees boo xam ne da ngay fexe xam actualité parce que actualité dafa am dañuy ni ngay mise à jour sa téléphone noonu la yàlla di mise à jour jamono bi léegi nag jamono bii dafa nekk jamono boo xam ne képp koy sëriñ te yàlla boole la ak jinne boolewu la ak ay rawxaan boolewu la ak ay xam yoo xam ne xam yu kawe la dara doo ko def mu leer alxuraan jii ngay jëfandikoo am na ci ay jinne yoo xam ne ni nga ko xamee lañ ko xamee donc boo ko di utiliser tamit dañ koy récupérer dañuy récupérer li nga xam ne moo ci njëriñ pour mu mën a jëriñ nit ki moo tax am na ñoo xam ne tey am nañ problème boobu dañuy gis secret yi ñu woon daan ko jëfandikoo muy leer léegi secret yi dara doxatu nañ jox ay nit ñuy gis seen njëriñ léegi bu ñu joxee nit ñi du ci gis dara léegi dañuy posé question dañuy posé na posé la question lu waral lii sooy liggéey ci système dangay ngay toog ba yàgg ngay gëstu système bi nga nekk da nga gis système bi nga nekk ci xool fan la toll moo tax am na solo trop nga mën a xam actualité bi nga mën a réagir ci ci ci actualité boobu nga xam ne fa la àddina toll moo tax fu mu ne nii bu la yàlla mayee xam-xam ngay liggéey ci kurus amul dara lu ko ëpp doole kurus amut du ko ëpp doole mais am na ay jinne yoo xam ne kurus du leen indi xam-xam jinne leen di indi ñoom lay neex rek ñu ñëw parce que ni ngay kurusee la ñuy kurusee ñoom benn benn kurus bi ngay wër benn yoon ñoom mën nañ ko wër un million de fois yow balaa ngaa wirde téeméeri per ñoom mën nañoo wirde un million un mille wala cent millions de fois ci sa ci sa ci sa per bi moo tax man jinne yi bu amee yenn secret yi ñu may wax suñ ma ko waxee ci seen secret yi dama naa ne loolu dafa ëpp ci nit ñu ne ah wax nga dëgg ndax am na ci yoo xam ne boo ko bu ñu la ko waxee nga def ko yow yow boo ko utilisé boo sàggatu mu seeyal la yow moo ñoom ak ñun bokkuñ jinne gaaw na gaawaay boo xam ne gis nga euh, àddina amut ci àddina lu gën a gaaw jinne lenn rek moo tolloog jinne ci gaawaay ci doomu aadama mooy xel xel rek moo tolloog jinne ci gaawaay ndax jinne moom boo ñëwee ne damaa bëgg a dem place ba wala damaa bëgg a dem marché da nga sol sa daal jóg dox jëm marché ñoom bëgg dem marché mooy egg nañ marché xam nga ñaari différence ñaari puissance yi tolloowuñ bëgg naa dem Amérique mooy egg nañ Amérique puissance boobu pour yàlla pour nga xam ne doomu aadama yàlla bàyyi bàyyilu ko dara lépp lu mu maye rek may na ko léegi nag mu des ci yow est-ce que puissance boobu yàlla may la ci sa intelligence ci sa xel est-ce que mën nga koo matérialiser ba mën a jël puissance boobu di ko def ci sa ay propre activités yi bopp foofu la cas problème bi nekk moo tax nag sëriñ si fii lañ rawante moo tax am na yenn sëriñ yoo xam ne àgg nañ ci dimension boobu ba mën a réaliser seen puissance boobu ba mën ko matérialiser ba bu ba luñ bëgg a def rek def ko ba lu toq seen xol rek loolu daal di am ba lu toq ci seen nopp rek yàlla amal loolu. moo tax nag am na yenn awliyaa yi yoo xam ne wëlu yàlla yu mag yi soo leen tooñee soo tàngalee seen xol gis ko suñ soo seddalee seen xol gis ko soo leen waxee soxla ñu dégg ko mu sotti suñ la xoolee fekk nga feebar ñu seet si la nga wér soo leen waxee soxla buñ buñ buñ buñ seen xel nekkee ci dara rek foofu loolu day ñëw ñu am ko boobu day fekk. day fekk mu ngi mel ni tey koo xam ne tey day jëfandikoo saytaane seytaane ba nekk ci moom dëgg dëgg dëgg gis nga bu la xoolee da ngay gis bët bi day ñëw ci yow moo tax ñu wax ne cat am na ñoo xam ne bët moo leen jàpp parce que kooka tooke gi saytaane bi moo nekk ci moom kon tooke tur tudd yàlla bi su nekkee sa bët soo xoolee dara yàlla da ciy def barke kon loolu na ko sëriñ yi bàyyi xel ni saytaane yi di liggéeyee di yàq ñun sëriñ si noonu lañu ñu war a yeewaat sa si ndigg liggéey pour defar moo tax man soo gisee man ñu gën maa xam ci côté social loolu la parce que man damay dimbale nit ñi ci di leen ñaanal yàlla di leen faj di leen dimbale di leen delloosi loolu moo tax nag jotaayu tey bi loolu moo tax ñu indi ko wala leen ne am na ay dimension xam-xam yoo xam ne tëju ci nekk liggéeyaat ñëwaat moo koy indi. parce que am na ci ay jaam yàlla yoo xam ne bu leen yàlla booleeg ñoom tey soo amee soxla kenn ku nekk Amérique am na problème kenn nga yebal si sa élément rek ne ko diw sangam ca Amérique am na problème dama rek leen ma ko. mu dem réglé réglé la ko même pas deux jours trois jours situation bi réglé mu dem doxi soxlaam yow nga mais loolu gars yi mënatuñ ko te loolu il faut nga am ñoo xam ne ci monde visible ak ci le monde invisible yëpp nga mën ci accéder nga mën ci réa nga mën ci réagir soo mënut loolu toogaal noppal nga xam ne yëf soppeeku na ñu bari tey am nañ problème parce que loolu moom mooy li xew moo tax yenn ñaan yi am na ci loo xam ne côté zahir la am na ci ko loo xam ne côté baatin la moo tax su la yàlla mayut xam-xamu doo dem su yàlla mayut yenn dimension yi ci xam-xam doo dem moo tax alhamdulilahi rabbil alamin euh, euh, euh, ñi nga xam ne nag ñu ngi sàkk ci man ñaan nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak ñu ngi ci bitim réew yëpp alhamdulilahi rabbil alamin dafee woon naa gis ci jamono yi passé yëpp waaye man léegi alhamdulilah reprendre naat naa sama liggéey képp koo xam ne ittiwoo nga ma soxla nga ma mën ngaa ñëw cité Aline Sow ci cité Aline Sow bi nekk golf foofu boo fa ñëwee ci wetu jumaa ji am na kuy jaay journal boo ko laajee kër Cheikh Oumar Diop wan la ko kër gi numéro bi village 652 la loolu pour ma yëgal ko nit ñi nga xam ne daan nañ jàmbat damay ñëw sa kër ba sonn du ma la gis boo fekk maa ngi yor sama kurus di liggéey am yu bëri yoo xam ne dafa nekk loo xam ne lu ma waroon a defaat la ci jamono bii ndax am na jamono jamono fu mu toll foo xam ne ñun ñooy responsable jamono ñun ñooy responsable jamono ji war nañoo ñaan yàlla li fi nekk jóge fi mbas mi war nañoo ñaan yàlla situation bi changé war nañoo ñaan yàlla taxaw face nekk face ak seytaane pour euh, wan ko ne ko moomoo àddina àddina nekk sa loxo ci loxo yàlla la nekk pour ñu mën a taxaw ñaanal ñi nga xam ne gëm nañ yàlla loraange gi nga xam ne am na ci jinne yi gëmut yàlla yi ñu mën a taxaw pour jàppale jaam yàlla yooyu nga xam ne dañoo nekk ci situation yu métti yooyu amuñ ku leen faj amuñ ku leen ñaanal amuñ ku leen dimbale ñu am solution pour mën a am foo xam ne bu ñu fa jëmee suñ dikkee seen jàngoro yi faju ndax am ñoo xam ne sëriñ oh, ñoo dem nañ fa am na ñoo xam ne sax boo jógee jëm ci sax balaa ngaa yegg euh, euh, euh, jinne ya jiit nañ la fa ba rek la situation kër ga ba mu jeex ba boo dikkee sax ñoom boo sàgganee ñoom ñooy dalal te kër ga te loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ñi xamuñ ko moo tax jinne yi am na ci ñu baax mais jinne yi am na ci ñoo xam ne dañoo doy waar rab yi noonu kon nag nañ bàyyi xel bu baax ci jamono bi ñu toll nga xam ne jamono bii jamono bu metti la jamono bu doywaar la jamono bu jafe la am na ñoo xam ne seen wërsëg dafa tëju li tëj seen wërsëg ñoom munoo dem ci sëriñ ba mu ne ba mu wax la ci ba mu am ci solution lu koy dindi moo tax il faut nga xam sa wër wërsëg kan moo ko tëj lan moo ko tëj am na ci jinne yoo xam ne bu laalee sa yëf buñ la téyee négocier rek nga ciy def naxanteeg ñoom bañ bàyyi wala nga naxanteeg ñoom bañ tub mais am na ci ñoo xam bu ñu dëgëree bopp nag moom ah faw nga am loo xam ne ko jëflanteeg ñoom bu boobaa dañ bàyyi. moo tax man balaa may jëflanteeg jinne yi ci yenn yenn mbir yi. faw maslaha waxtaan euh, ñaan njëkk bañ ba parce que jinne yi noonu la am na ci ñoo xam ne moom da ngay ñëw rek fuqati yëfi parce que ni muy demee la moo tax ñu bàyyi ci xel ñu xam ne jinne am na ñu bëri bëri bëri bëri ñu ko doon wax mësuñ koo gis mësuñ koo dégg amuñ ci xam-xam xamuñ ci dara dañuy wax rek waaw moo tax ki xam jinne moom su la déggee yow mi xam jinne ngay wax dana xam ne kii xam na jinne waaye ki xamul jinne moom suy wax ki xam jinne bu ko déggee rek dana xam ne kii xamul ci jinne dara moo tax ñi xam jinne bu ñuy wax dana am nu ñuy waxee ñi xamul jinne bu ñuy wax dafa am nu ñuy waxee parce li ngay foog di ko wax ak li nga xam di ko wax duñ benn li nga xam ne dañ koy dégg di ko wax ak li nga xam ne dañ koo gis di ko wax duñ benn moo tax jinne du caaxaan am na ci ñoo xam ne yàlla may na leen kattan loo xam ne buñ ko nit xamoon dana moytu jinne ndax jinne bokkul ak nit te ñoom nag ñu ngi nekk ñoo xam ne foo leen tuddee ñu teew ak ñu mën a nekk ci àddina bi boo tuddee seen tur yëg dégg nañ ko waxuma sax tudd seen tur waa sa xel sax bu leen xalaatee sax ñu yëg ko ñu dégg ko kalaat rek amul jinne bu mu mënti doon ci kaw suuf bu tudd nga ko lu dul dégg na turam ci tudd nga ko tudd moo tax bëgguma moo tax tudd ma fi benn turu jinne parce que xam naa li tax tudd ma turu jinne am na ci jinne yoo xam ne man su may def émission dañ may wax ma dañ may wax sa bul tudd sama tur émission bi am na ay émission yu ma defoon bëggoon tudd ne dañ ma bul tudd sama tur ci émission bi parce que am na si jinne yoo xam ne bugguma leneen tooñ waaye am na ñoo xam ne dañ lay dañuy dañ lay wax amul problème waaye man maa préféré bii yoon bañ a benn turu jinne waaye ñoom xam nañ sooy wax ci ñoom dañ lay dégg dëmm yi tamit noonu lañ mel dañuy am ci ay carte dañuy paasante seen ay affaire dañuy jokkalante ay mbir dañuy dimbalante dañuy jaayante dañuy faylante ay bor dañuy dañuy tayalawante tamit am na ci ñoo xam ne bu la jinne jàppee da leen di dañ leen di tayle suñ demee ba mënuñ ci yow dara dañ lay jaay mën nañ laa jaay seen ay supérieur mën nañoo dema dema dema dema dem ba ci seen ay société mën nañ dem ba ci seen ay rëboo te loolu ñooñu ay ponkali ponkali mag yàlla nag moo tax mucc ci ñoom kenn rek moo ko mën a def ci muy yàlla suñu borom moo lay téye làq la soo làqoo ci yàlla nag mënuñ ci yow tus waaye jamono bii ñu bëri dañuy tëmax tëmaxi nit ñi sax xamuñ lu xew moo tax da gis nit di def yenn bêtises yu rëy yi yoo xam ne boo ko xoolee da nga naan lii naka la ko nit mënee fekk jinne ci boppam moo ko dugg def li ko neex mu ngi mel ne masalan jam paaka nit xam nga nit soxor jam paaka nit da ngay gis koo xam bu jamee nit paaka moom ci boppam bu paree day rëccu lu tax mu jam nit paaka da ngay am lu nga gis ko mu am lu ko metti pataka pataka lu tax wala lu ko war a utiliser nañ ko <clears throat> utiliser ba mu jam ni paaka ka ko utiliser daal daw nga gis léegi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy soxla deret buñ soxlaa deret nit dañ lay jam dañ lay xii moo tax xuloo ak xeex ay feru seytaane la nit daf koo war a moytu ndax soo xasee mer amatoo contrôle ci sa bopp seytaane day profité def la loo xam ne boo paree da koy rëccu te seytaane du baal nit ci dara ndax yàlla moo wax ne suñ noonu la ki gëm yàlla na ko leer na seytaane noonam la bépp bagaasu seytaane boo laal nag na la wóor ne laal nga yëfi seytaane te bu boobaa du la ci may dara moo tax ñu bëri seen sëy yi tas nañ seytaane ko tas ñu bëri seen kër yi tas nañ seytaane ko tas ñu bëri dàq nañu seen société yi lépp pexem seytaane la te ñu bëri am na ci loo xam ne sax da ngay da nga koy def ba pare ne leen lu ñàkk lu ñàkk fayda lii lu tax mu mën maa daal fekk dañ laa bëmax ca la tax nga def ko moo tax di di bàyyi xel loolu baax na am na ci ay ñaan yoo xam ne rek su la ko yàlla dénkee soo ko amee loolu mucc nga ci yàlla dana la musal ci côté boobu muy li nga xam ne mooy am na ay sangat yoo xam ne bu la ko yàlla dénk boo ko amee da alhamdulilah rabbil miin yàlla may nañu yooyu ay sangat yoo xam ne boo ko sangoosee bépp làmmeñ bu la mës a téye day bàyyi am na ci sangat yoo xam ne boo ko sangoo da ngay të dañ ñoom ci ñoom duñ la mënal dara wala tooke boo xam ne def nañ ko ci sa biir yaram boo ko sangoo yum dañ moo tax am na ci ñoo xam ne yoo xam ne boo ko takkee ñoom duñ la mënal dara am na ci yoo xam ne buñ la ko ay sarax yoo xam ne boo ko defee ñoom dootu la mënal dara am na ci ay jinne yoo xam ne ay jinne yu baax jinne yoo xam ne ñu ngi ànd ak nit ñi téye leen téye seen ay affaire su nit ñi xamoon seen ay sax bu ñu ko defee rek nga gis ñu nekk seen ay waay wala loolu sax mën na leen a xëcc sax bañ dugg ci lislaam bañ nekk seen ay ay di leen protéger moo tax sarax dafa baax sarax mais sarax nag pour nga mën koo def il faut ku xam sarax moo la koy digal xam sa rawxaan wala mu xam sa sa euh, euh, rab wala mu xam jinne bi la téye sarax bi muy laaj mu defal la mu sant la nga def ko soo ko defee nga mën a am sa jàmm ñu mën laa bàyyi am na ci jinne yoo xam ne bu ñu la téyee am na loo xam ne boo ko defee ñu bala am na yoo xam ne boo ko deful nag duñ la baax moo tax sarax dafa baax am na ci sarax yoo xam ne nag foofu ñu digal la ko pour nga soog koo mën a def sang dem ci sëriñ nga dem ci ku xam moo ko gën dem ci ku xam xam situation yi nu mu mel soo dikkee ci moom mu mën laa wax wax la li nga xam ne moom moo nekk ci yow nga mën koo nga mën koo nga mën koo dégg jamono bu doy waar la nag nit ñi amuñoo xam ne maanduwuñu ragaluñu yàlla léegi nag maa ngi leen di artu di leen wax lii képp koo xam ne yaa ngi koy tappale di ko oote da nga jot sa wàll de boo ootee loo xam ne du dëgg da nga ci gis loo xam ne bu boobaa yaa koy wéetoo min nañ nag lépp lu Cheikh Omar Diop wax rek bu ñu xëyee rek ne ca loola loolu lañ ci bàyyi xel lii képp koo xam ne yaa ngi koy waxta du dëgg ci yow lépp lu ci nekk ci ay conséquences di nga ko gis yow maa ngi ko sa njaboot. ñu ngi adresse bi mu ngi nekk cité Aline Sow bu nekk pharmacie golf boo ñëwee ba dugg ci biir cité bi benn jumaa moo am ci biir cité bi nga laaj ci jumaa ji boo ñëwee ba ci jumaa ji nga oote wala nga laaj numéro kër gi villa 652. incha allah boo ñëwee foofu danañ gisante soo ñëwee jàppalante incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant wa maa saalika alaa laahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf